asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu taamu duñu suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen di ñaanal kenn dal ak jàmm ñu ñëw ci convocation yi nga xamante ne moom la ñu nemmee ko fan yi nga xamante moom mooy Walf Quotidien di ñu ci dikkal di wax na convocation tous azimuts pour les délits d'opinion di titre le grand bond en arrière tey nag ma ngi cay li nga xamante ne moo nekk na Bougane Gueye Dany Bougane Gueye xaw ma dang maa bëgg wala la ñu tamit muy ñëw ci même temps di ñu xamal ne kii di Bougane Gueye Dany dañ ko war a auditionné tey na la ca a de Barthélémy Dias ñu ñëw ci li nga xamante moom mooy révélation moom tamit di dëkk ci convocation yu bari yoo di ko assimilé ak intimidation di wax ne le règne de l' intimidation maanaam xoqatal gi fi mu toll nii moo fi am kii di Cheikh Yérim ñu téye ko kii di Bougane Gueye ñu convoqué ko kii di Diégui Diop ñu ngi koy déglu kii di la dépêche républicaine di fësal seenam natal di sampab lay reddition des comptes la outrage politique la boo ko xamee wax ñu ci noonu la ñëwee ci l'exclusive ci ñi nga xamante jot nañ leen a woo téye nañ ko kii di Lat Diop téye nañ ko commissaire Kayta ca la bokk Ahmed Suzanne ca la bokk ak ki nga xamante ne moom mooy Bah Diakhaté muy titre le pouvoir tire sur tout ce waaye nag ca coowul convocation yooyu ki nga xamante moom mooy la société civile di si ñëw yéenekaay bi di la grand panel di ñu xamal ne la société civile avertie mu ngi wax ne après Pape Moussa Touré et Kader Dia Cheikh convoqué par la DIC Alioune nag ma ngay sàkku ci ñi nga xamante ne ne moo fi daloon nguur gi fi jógee ci noonu so a di feeloo di fasal nataalub Alioune Tine di titre Alioune Tine fou de rage kooku nga xamante ne moom moo di Alioune d'état moom daal nee na xalaatam mooy lii di délit d'opinion dañ koo war a génne ci li nga xam ne moom mooy suñu code pénal di xamle ne a moom mooy Fadel Barro di wax ne amul benn rupture li fi amoon ba léegi moom moo fi am rek dafa mel ni c'est du Macky sans ki nga xamante ne moom mooy tas nag di Thierno Alassane Sall moom nee ki nga xamante ne ñoo fi dàqoon a saaga dàqoon fee xasta dàqoon fee sosalaate ndekete ñoom dañoo allergie loolu ñu doon ki nga xamante moom d'expression au Sénégal régime bayoon les critiques des comptes la wala règlement de compte la ñu ñuy xamal ne des opposants activement recherchés la machine répressive samba lan moo xew mu am ñoo xamante dañoo gis na kii pouvoir bi dafa bëgg a wàññi opposition maanaam doole opposition bi balaa li nga xamante ne moom mooy législative anticipé yi ñu war a amal le novembre prochain waaye nag ku wax ci jey bi boo paree wax ci yaboy bi sut quotidien di ñu ci ñëwal élection te loolu bu amee sama genre gi nga xamante ne seen doole a yëg la ñuy ñëwee ci l'informateur mi ñuy di ñaar ba ñetti coupure am nañ ko weeru octobre bi gannaaw ba ñu jógee ci li nga xamante moom mooy yu bari ñu ngi li nga xamante ne moom mooy ndox mi maanaam yàqu-yàqu yi nga xamante ne am na ko fële na la ca dande maayo ki nga xamante moom mooy le quotidien di ñu ci dëkkal di wax ne kuréel débordante di du fleuve le Dandamayo sans voix mu ñuy xamal impact bi nga xamante ne moom la situation sanitaire ak alimentaire bi nga xamante ne waa dëkk boobu ci la ñu nekk ndax fi mu toll nii dex ba moo dagg boole ak ndoxum taw bi daaneel seen kër yi yàq seen dund gi yóbbu seen mala kon nag ñuy ñaan état mu jóg ci situation boobu comme niñ leen ko tàmm di woowee la zone coupée du reste du Sénégal waaye nag ci Sénégal la ñu bokk comme dañuy wax ne mbaam gàtt na waaye ci sénégalais di ñu wax ne le CNP et la CNES ak leur maanaam secteur bi ëmb patronat bi ak secteur bi nga xamante ne ëmb liggéeykat yi booloo nañ nekk benn li ñuy xamle nag mooy force te li ñu bëgg mooy nguur gi jàppale leen li nga xamante mooy seen bébét mooy d'élargir le mouvement d'unification aux autres entités de secteur privé ki nga xamante mooy le verdict ñëw feelu ko réunification de CNP et de CNES l'état doit davantage aimer l'entreprise sénégalaise a war a nga xamante ne moom la nguur gi war a def ñoom ñoo ko koy defal maanaam créer li nga xamante moom mooy emploi di ñu bindal volonté prêtée de baisser les salaires des agents de l'état le gouvernement refute les allégations du PIT ci ab bataaxal boo xamante ne nañ ko ma ngay wax ne ab manœuvre la maanaam désinformation diffusion de fausses informations te loolu duñu ko nangu duñu ko accepté ci noonu lañ leen di tàggoo yéen ñi safoo Sénégo Média di leen wax ne jërëjëf ñu yendoog jàmm